nuyu naa leen sama mbokku internet yi ziar naa leen aimé leen vidéo bi abone leen cliqué leen si cloche boobu vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan tey nag damay ñëw wax si benn affaire boo xamante ne yéen sama internet yi yéen ma si interpellé pour ma wax si sama xalaat ak sama gis-gis bu gàtt nan laa gisee équipe bu Barcelone ak seen entraîneur bu bees Koeman Koeman nag kenn du ko présenté si football mondial ndax jaar na Barcelone def ay jaloore daan dugal ay coup franc yu extraordinaire am benn frappe de balle bu ñeneen ñi nag ñoo ngi ko xam en tant que entraîneur mu jaar si ay club yu bëri fii ci réew mi nag ñeneen ñoo ngi ko ràññee bi mu nekkee Southampton ndax moo yoroon suñu joueur bi Sadio Mané ba tax na ñu bëri dañoo gis ne pourquoi pas Sadio Mané dem Barcelone li tax ñuy wax loolu nag ñëpp xam nañ ne fan yii nii bi leen dooree Ligue des Champions contre Bayern ba tey dañu wax ne bëri na ay joueurs yu xamante ne dañ leen di jaay te ne jaay di nga wax ne di nga am xaalis di nga am benn somme bi.

ba tey waa Liverpool gën ko bëgg a jënd mooy seen jogante boobu ba mu dugal ñaari bi contre Liverpool ci baax bi la jógee te loolu match bu mag la woon donc loolu mën na nekk solution vu que boo xool boo xool di côté de ba tey jii offre ñëwagul ci table Liverpool Sadio Mané itam ba tey prolongé wul ak équipe am Liverpool donc loolu mën na nekk mais laataa muy mën a nekk foog waa Barcelone jaay ay joueurs comment nag bëri na ay choix man sax si li ma gën a xalaat. mu jënd Depay moo gën a gaaw donte nag mbokk hollandais boobu noonu dafa jógee si ligament croisé mais moom si conférence de presse dafa yàgg wax ni Depay niveau du lion donc moom mën na ko relancer andi ko Barcelone teg si bi mu ko yoree équipe nationale bi Hollande match yi mu mujjee joué Depay côté attaque bi bii yu bëri moo ko doon dugal si taskatu xibaar yi nekk fële ci Hollande ñoo ngi xamal ne tamit dafa bëgg jënd dem donc moom ay mbokkaam yu si mel ni Virgil van Dijk Virgil dem Depay mu jënd leen mooy gën a gaaw mu jënd Sadio Mané bu fekkee nag seen diggante retax na si diggante bi ñu am benn somme bi pourquoi pas mu jënd Sadio Mané léegi mbokk yi wax naa si sama xalaat ak sama gis-gis xam naa ne fan yi di ñëw dinaa jël sama temps def benn vidéo bu gën a complet andil leen ko si chaîne bi léegi bokki ci commentaire wax leen ma noonu lañ ko gisee wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis dien wax itam ngeen abonné cliquer si cloche boobu vidéo bu ñëw ngeen mën ko sitaan jërëjëf ba beneen sur Sine Football TV